kenn ku nekk dina wax li mu bëgg a ci restant xaalisam li mu ci bëgg a def en attendant ñu pare formation muy dajale xaalisam di liggéey ci loolu parce que restant xaalis bi duñ leen ko jox pour ngeen denc ko seen kees dañ leen koy jox pour après ngeen liggéey ci liggéey boobu nag 100000 yooyu ñuy jox chaque groupement du ñu leen may pour ngeen di tëdd dañuy toog tamit waxtaan selon li ñu mën kenn ku nekk bu ñu ko joxee 100000 ñaata weer la ko mën a delloo si parce que dafa amat ñeneen ñu nekk ci ginnaaw te dañoo war a am comme que dafa am ñeneen ñu nekk ci ginnaaw te dañoo war a am te ñun suñuy dooleel bopp la ñuy liggéey ak ndimbalu coordinateur ñu dabal yërmande ñu waxtaan ci yërmande ci ñun ñëpp ñaata weer lañ ko mën a fay suñu defaree suñu jus local yooyu ñaata weer la ñuy renouveler jaay ak ñaata ñaata weer lañ koy fay si kaw loolu it day am suivi comité de suivi comité de suivi boobu chaque weer dinañ ñëw su ngeen waree préparer jus dinañ ñëw foofu xool ak nu ngeen koy jaayee bu fekkee da ngeen a jënd yeneen produit tamit di ko jaay seen koñ dinañ ñëw xool ñaata ngeen koy jaay bu fekkee chaque weer da ngeen di dugal dara ci seen 100000 yooyu ngeen ne chaque weer temps la ñuy dugal comité de suivi bi dina ko jël si. bu fekkee ne da ngeen di bàyyi ba ñeenti weer tamit ngeen jaay joxe ah ñeenti weer yooyu tam comité bi ci ñeenti weer yooyu dina ñëw xool ndax yéen a ngi liggéey ci xaalis bi ñu leen jox. parce que xaalis bi ñu leen jox ñu ne pour suqaliku lañu maye joxewuñu xaalis boo xam ne dañ naan ah nañ ko lebal kii fukk junni lebal ko kii fukk junni beneen weer ñu lebal kii fukki junni lebal fukki junni dañoo bëgg ñëpp groupement bi ñëpp a gis ci seen bopp. démb coordinateur mi ngi wax benn idée mu ne comme que légume bari na dafa wax rek noonu comme que légume bari na groupement yi bu ñu desalee nan dem jënd légume sotti ko ci seen taabal jaay idée bu baax la leneen bari na. soit ñu wax leneen bëri na na ñooñu jël seen restant xaalis jënd bu amee keneen koo xam ne am na méthode boo xam ne dina ko dina jural xaalisam tamit moo xam mais dañ ciy waxtaana ci comité de suivi bi bu ñu paree ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu jot cent mille dina am comité boo xam ne ñooñu dinañ dugg ñu waxtaan ak comité de suivi bi ñu wax ñu ñoom kañ la ñuy daje par weer wax ñu ñaata weer la ñuy fay xaalis bi wax ñu tamit seen restant xaalis boobu la rek lañu lañ ciy liggéey

parce que l'union groupe dafa ni groupement bu nek dina participer 17500 17250 750 pour mu jënd matière première bi maanaam jinjeer Dakar yeeg suukar pour ñu démon ci ki bi après dina dina yaatu pour ngeen xam ko léegi man dama wax man en tant que président, dama wax ne dañuy joxe ku ne 18000 18000 yi 750 Voilà. 17 voilà 17250 mom lañ koy jox mu jënd ci matière première pour formation bi day de 750 750 mooy location matériel bi pour chaque groupement pour chaque groupement lii mooy sa location matériel lo jëluñu location matériel bi tamit pour jël ko di ko delloo fenn wax naa léegi dañoo war a def teinture dañoo war a def céréale local dañoo war def am fi posé informatique am nañu fi posé euh, savon am nañu fi posé pâtisserie loolu yëpp ak matériel boppam la donc loolu yëpp dañ ko matériel ci location yooyu ñuy jël moom la ñuy dajale su njëgu matériel ñu jëndaat matériel tegaat fi dinañ dem ba nga formation bu ñu bëgg def formation suñu nous def suñu atelier suñu groupement dañuy ñëw 750 matériel nous ñu soxla local def suñu formation euh, defar suñu produit ñëw matériel

maanaam buñ la jógee joxee ci xayma rek njëgu diis bu tey nga jaay 10 bu tey yi 2000 2000 fa mille la 20000 yooyu day fekk si waat sa 85000 ya desoon muy 105000 nga moom ko di ci produiraat di jaayaat muy gën a yaatu maanaam 17000 yi boo ko joxee waat day dellu siwaat ci yow. Euh, jus local la ñuy njëkk a def 10 groupes mooy njëkk a def formation dans la semaine formatrice mu ngi nii toog ñi gagné ci kàttanu yàlla dina leen wax. jour tel la ñuy commencé formation bi su fekkee ne ana formatrice am na loo xam ne matul ci li may wax nga mottali ko. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam euh, di dalal sunu gan gi docteur Ndiaye euh, di nuyu koordinateur monsieur Habib kan di wax rek xanaa dëggal waaye li mu wax yëpp leer na naññ naññ naññ naññ fenn rek la ñuy gën a dëggal mooy que bu ñu am benn inquiétude. 18 mille yooyu nga xamante ne ñu ngi koy joxe dafay dellu si waat ci seen groupe te du 18 mille kese kese rek moom mooy dellu si waat may dëggalaat rek li présidente wax ni tey bis bu ñu produiroon ba pare xoolal ku nekk rek am par exemple quinze bouteilles ndax ci base boobu lañ ko xayma 15 bouteilles yi boo ko jaayee ñaata la du 30 mille yow lan nga joxe woon 18 mille te bouteilles yi du taxaw butéel yi du taxaw 2000 francs lañ koy jaayee te loolu rek waxuñu nag lay topp ca butéel ba parce que am na yeneen yuy topp ca butéel ba wër na ma ni ku ci nekk rek daa ci am 35 wala 40 mille yu lay revenir la cay topp moom yàlla rek ka xam mais 30 mille yi moom dina taxawaat ci seen loxo waaw loolu daal lañu amoon lu ñuy doon dëggal di wax ni docteur moom it ku baax la kuy jàppale jigéen ñi la keroog wax na dëgg bërki démb rek lu ma ko doon laaj matériel ba ma fa gis parce que dañoo euh, dafa dañu am lu bees ba ñuy jàngale saabu ay bag lañ daan def ci menuisier bois ñoom ñoo ñu doon defaral bag moom bi mu jëkkee defar euh, bac yi nga xamante ni moom euh, menuisier métallique moo koy defar daf ma woo ba ma ñëw mu wax ma mu ni ma lii laa bëgg lii dama ko innové maanaam lu bees la au lieu que ngeen di jël ay toile di lal léegi bag yi su ngeen ko sottee saabu bi su ngeen génnee rek dafay daal di boppam te ñun dañ daan këpp di couper suñu bopp ak paaka wala ñuy jël fil di ko ci natt mais da ngay fekk menuisier métallique yi defaral la ak lam mu présenté ma matériel bi ak yépp ma waroon fa jëkk def formation waaye faf sam papa génn àddina en 2015 loolu moo tax barki demb nag ma demaat ci moom parce que dafa am ñeneen ñu may liggéeyal ñoo xamante ni dañ ko war a def commande commande bi 50 000 la ba mu wan ma ki koy def euh, kon nag moom tamit wax dëgg neex yàlla day jàppale jigéen ñi euh, ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp gërëm ñëpp

remboursement boobu ñuy def ñun ñii sax ñun ñoo ko moomaat suñu biir parce que tey mën nañ démarrer ak 100000 mais suba mën nañ amaat kenn ku ne ci 300000 ba 500000 loolu lépp li koy indi mooy xaalis bi ñuy remboursé remboursement boobu du question dañuy remboursé pour delloo ko xaalisam delloo wuñ ko ko lii mu génne daf ko maye yéen ko moom mais tam bu ñu remboursé pour ñu xoolaat ñun suñu biir xool ñi amul woon ñu jox leen su ñëwee ba ëpp. suba kenn mën na soxla financement wu 500000 ci beneen projet dafay fekk xaalis bi su boobaa ñu yëg ñu ñu jox ko loolu rek laa bëgg a leeral quoi waaw. di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen euh, jéggalu leen wax ne li ngeen fi li ngeen ay set di wax nii yaakaar naa ne waxtaanee nga ko ba pare li ci ëpp solo mooy liggéey bi ngeen war a liggéey ngeen def ko ci fulla ak ci fayda te xam ni man mi ngeen àndal di li engagement laa jël liggéey gen te engagement boobu lu ma gëm la lu ma gëm la ndax ñàkkuma bunt bu mu mën a aw pour liggéey sama bopp mais dama dama dama bëgg man maanaam ñi nga xamante ni dañuy bëgg ku faj seen soxla ñu jox leen lu ñu mën a fajee seen soxla te duñ laaj kenn moo war ma def lii mais bu fekkoon liggéey rek la. man mën naa liggéey ndax xam naa yoon bi may aw pour liggéey ba am dara damaa xam ne bu ma nekkee ci lii keneen nekk ci lii keneen nekk ci lii dana yàlla dana defal jàmm léegi incha allah mu sotti yàlla def nañ na kon dem nañu ba déggoo ñun ñëpp doon ay mbooloo ku ci nekk am njiit mbooloo mu di am njiit ñu ne mbooloo mu nekk dinañ def lii ñiy def lii ñiy def lii kon je pense que ni réeroo du am te liggéey bi dina barta dina gaaw incha allah bu yéexoo lay àndee rek liggéey bi gaaw loolu rek am solo alal ji amul solo dara amul solo xam nga loolu solo xol yi ak yéenante yi ku ci ne jàpp ni sama moroom li mu dugg nii bu mu liñ ko jox nii mel na ni man doon ko jox boo leen defee loolu seen bopp rek doo leen sonn affaire li mu doon affaire léegi bi yooyu ñu doon man maa ko man maa ne kon bu ñu nee dix-sept mille deux cent cinquante ngeen di joxe pour ñu defaral leen matériel bi dix-sept mille deux cent cinquante yi maanaam boo leen ko waxtaanee ba d'accord ko di ngeen jël seen xaalis yéen seen biir fii ngeen jox aana aana bu amul matériel bi dina wuti matériel wala ngeen dem marché wala ngeen dem feneen ak feneen pour wut matériel pour mën a liggéey seen liggéey ma jàpp ni la ngeen di fayee ci marché bi pour ñu walal leen wala la ngeen di fayee ci marché bi pour ñu dëbbal leen lañ koy dëbbee ak di ko wal nañ ko jën teg ko fii mu nekk seen loxo moo tax man leen ma ne Aïcha bàyyil ma jox leen deux cent vingt cinq mille deux cent trente mille ngeen matériel bi ñoom bu ñu di liggéey seen dix sept mille deux cent cinquante yi ñu war a fay kuñ ciy liggéeyal ci journée bi. au lieu de 17 250 da ngay joxe 18000 750 750 yooyu mooy dem ba génn njëgu matériel bi ngeen moom seen matériel boo defee boo leen rëpp matériel xaalis matériel bi matee léegi 17 250 ngeen joxe parce que yéen a moom seen matériel loolu lañ ci doon waxtaanee xëy na sax affaire dañoo bett am naa benn waay bi fi ñëw léegi proposé ma benn machine dox boo xam ne na ma 500 litres d'eau lay defar par jour mooy ki ma oto bee wax na ma nee na mën naa laa lebal ñetti machine sànq bi ma ko waxee dama dama xër wax rek ma ne ko indi ma machine bi tey ma boole ko fii ñu teg ko parce que sama semaine machine yi ñetti machine yi ñëw zone bu nekk ñu bàyyi fa benn machine bu defee muy wut ndox zone boobu di jaay ndox mi di jaay di ndox mi machine bi di jaay waa zone boobu ndox te loolu sax moom ma ko xelal te xam naa la ca nekk ndax wax na ma rentabilité ba ca nekk nee na ma loolu boo leen ko amoon rek dootoo leen sonn yooyu nag man ci laay dox su ma bëggoon jot dinaa fexe wut loo xamante ne dina leen yokk ba doo leen am soxla ci kenn mënul ñàkk nag nit ñi moom il faut nga am soxla ci moom ndax fi mu nekk nii yéen mën ngeen am soxla mais ñi topp seen ginnaaw mën nañu am soxla te yéen dool ko wuti ci kenn ku dul ki ngeen ko yaakaar kon yàlla na yàlla def yaakaar googu ngeen di wut ci keneen suñu borom def ko ci yéen ba nga xam ne ku yàlla mën na ko ni mu ko defal ëppalu ñu dara gënuñu leen kii dara damaa jàpp ni bu xooli oyofee rek ku ci ne ci yéen di ngeen mën a dimbali sa morom ma jàpp ni boo leen génnee ci njëgu bisaab yooyu maanaam affaire desitu xaalis bi fii rek laa ko jël fii rek laa jël exemple bi mais maanaam Aïcha Aw mi dëkk fii su gañe woon jël 17 18 mille am jox aana dina dese 82 mille 82 mille yi bu jëlee 75 mille yi dem ci euh, euh, noto guy jama wala mu dem ci mbooro jën ci sa ay saako carotte saako newe saako supame ñammi ñëw sotti ko ne ci kaw télé bi ñoom faj jëpp ñoom nday taal ak ñi dëkk ci koñ bi Anta Diallo doot ñu dem marché jënd légume fii lañ koy jëndee ci moom te maanaam ma chaque jour chaque jour lu muy jaay ci léegi maanaam boo indee di sacs di ko jaay ci journée bi parce que bu waa koñ bi yëpp génnee di nga jaay dix sacs yi yooyu bu demee bu maanaam boo leen ko jaayee fukki dërëm juróom yi day nekk seen xaalis juróom yi des doon seen bénéfice kon pertement amu ci mais ku nekk ak sa xelum bopp na ngay liggéey man du ma wax kenn awee nii pour nga liggéey nit boo ko xasee ba jox pour mu dem da nga koy bàyyi mu dem mais nag ñàkkul boo xamee yoon bu ko mën a dimbali da ko koy wax mais ñun ñëpp xam nañ ni yéen ñëpp xam ngeen ne ku ci nekk boo yeewoo di nga ma siwo di nga dem marché di nga jënd légume di nga jënd jën kon nag boo leen amee possibilité ki ngeen bokkal dara di jaay légume ci koñ bi je pense que ni bu koy bu leen koy jaay seen intérêt nekk ci moom moom moo leen gën a moo ci ëpp solo loolu man laa amoon lu ma ciy wax waxi jën nag du ma ci wax parce que man yàpp laa gën a wax sax dama ne tey wax naa ko ne dañu wuti yàpp pour yéen parce que dax yàpp moo koy wax mooy maanaam fii bureau bii ngeen nekk tey laa bëgg def ay nag ak ginaar di ko fi def ku ci nekk fi nga nekk ci yow boo soxlaa da ngay woote rek ne livré leen ma ñu indil la yàpp indil la ginaar boo ne ajjuma lay fay ajjuma nga ñëw fay. bu ko def parce que boo xoolee boo leen demee marché di jënd foofu kilo yàpp 2800 ngeen xool fii boo leen amee ko kilo yàpp mën a jar ci yéen 2500 300 boobu du bénéfice boo leen ko calculé 300 yooyu ci cent personnes par jour ñaata la. 30 000 la multiplié ko par par par par par par 30. cent 900000 le mois 900000 yooyu xaj na ci yéen 900000 yooyu ñetti nag la wax encore ci biir weer bi te ñu ngi koy am ci yenn marché mais damaa jàpp ni ay nit bu ñu àndee war na nañoo mën a bokk lépp xam nga lan la ma doon métti ngeen pare pour liggéey amoo leen possibilité liggéey wala amoo leen moyen liggéey wala kii mais am ngeen possibilité am ngeen moyen tey chaque jour bu fa amoon rek ñaari moto lañ teg bàyyi fixe bi. Yacine Ndiaye ngi Bambara allo na ngeen def ah, ah, ah, Arfan waxal Pape Sidi Assane ñu daggal ma 2 kilos ak kii tegal ma ko Pape Sidi mu du taxaw Yacine Ndiaye waroon naa dem marché bàyyi këram may ménage am dagg dagg la muy def war a dem fay jënd yàpp 2 kilos mu ngi ko jëndee 5600 fay taxi bu ko jëli 1000 francs muy 6600 léegi am na ku ko indi ci 5000 francs kon je pense que ni 6600 boobu 1600 descend amaat na fa dara parce que dafa bàyyi weccet boo xam dafa bokk ci li def man xalaat yooyu laa am di ci wax léegi nag yéenay xool seen biir li nga xam dal na seen xel ak li nga xam ne xam ngeen ko te mën ko te boo leen ko defee du leen gaañ ngeen def man munu ma leen a gunge leen rek laa mën li ma amit dinaa ko for ko indi xel mi ma amit dinaa ko indi ngeen indi seen xel ñu boole ko rek jëm ci kanam wasalaam